yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñuy jóg di way sang be jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou Serigne Mountakha Mbacké xalif général sunu borom yàggal ko fi te mu ànd ak lool di ko ñaanal Serigne Cheikh Modou Menda Fall di xalifab sunu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fi te wér si noonu ci lay siyaare Serigne Cheikh mbakke mu Serigne saaliw ak njabootug Serigne Saliou gi. di leen ñaanal ñu yàgg fi téwér maa ngi siyaare Serigne Salim Ndigal di xalifab Seex Béthio Thioune sunu sang ba sunu jàmbaar ja sunu mbég ma sunu xol ba di sunu sëriñ maa ngi koy ñaanal moom sëñ Sal Ndigal di bu Seex Béthio mu yàgg fi lool te ànd ku waaw di am mbégte lool si jël gi ngeen ma jël si tey ngir rek ma waxtaane màggaluk Serigne Touba gi jëfi Serigne Saliou ndigal ji nga xam ne jëf na ko si màggaluk Serigne Touba gi Serigne Touba kay tayam ju day gàcceel démbam moom day ku gis tey ak nagam yu bari yii sa xel si sëñ Béthio rek lay dem ndax sëñ Béthio day moo daan jëf jëf ju nu mel ana tey kii di Serigne Saliou ndigal dib taawam delloo buum. boy boy ga kon Serigne Saliou Ndigal daal ni ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu tëwér ndax moom day sagalaat nañu waaye sagal na sëñ Béthio waaye sagal na sëñ Béthio waaye sagal na képp ku dib cattaakun ba tax na cun mambam bi nii nga doxee si màggal gi ak xéewal ni mu baree sa mbaax gi maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou yàlla na ko gën a man ñun day réccuwuñu ànd gi nu ànd ak Saal réccuñu jàpp gi jàpp sëñ Saal réccuñu mbig ne te sëriñ bi defal na ko ndax ñun kay wax dëgg yàlla si loolu rek ci la sax ci la ñuy ne mooy mbegum sëriñ bi waaw. Ah, gis nañu euh, moom mu yoree euh, bi mu yoree. maanaam bi muy yoree kër Cheikh Béthio xalif bi waaw waaw jiite gis nañ ni ba ba tey da ngeen gën a juboo gën a ànd gën kaa dooleel may ko doole ba muy chaque année muy gën di dem ci kanam waaw waaw Serigne Touba ay xéwala mel moo mel noonu Serigne Touba ah boo def taalibeem Serigne Mountakha Mbacké mii di sunu xalifa baax lool bëgg sëriñ saaliw te sëriñ saaliw la ko may sëriñ saaliw ndigal la kon faaw mbiram jëm sa kaw faaw nu yéene ko ko faaw nu jàpp ko ngir lan sagal gim nu sagal sagal gi nu sagal kat mooy jëf ji nga xam ne mi koy jëf si sëriñ Béthio loolu day wax dëgg yàlla te it sëñ Saal day nit ku oyof day nit ku baax day nit ku tabe day nit koo xam ne ku yëg doomu aadama la doomu adama yi lañ ma ne nit boo ko yëgee mu yëg la nit ki boo ko bëggee mu bëgg la sëñ Saliou Ndigal nag dañoo bëgg njaboote ñëpp fonk ñëpp képp ku ñëw këram du la ignoré sëñ Saliou Ndigal képp ku ko seet si këram fas yéene ko siyaaree dalay teg sa kaw moom de xoolul boromi dërëm boromi milliard wàccuwaay wa muy jox kat lay jox boromi dërëm boromi dërëm ndax kat man mii rek bu ma duggee këram sa la may teg teeru ma teral ma sagal ma du ma xeeb mukk kon jëmm jooju wax dëgg yàlla ñun sant rek moo nu war si moom li ñu koy ñaanal mooy mu yàgg fi te wér ndax yoon wax ko baayam sant ma nga te jugu sa nii la de taalibe nag ban ban soññ nga waaw taalibe yi li ma leen mooy nu <laughs> ànd liggéeyal sëriñ bi ñu jàppoo bokk ndey bokk baay yéenante jàmm fonkante joxante cër te sëriñ Tuubaa tax lu waay yéene sa bopp nga ko sa morom loolu lay soññi. samay mbokki taalibe nanu bëggante nanu fonkante nanu yéenante jàmm te xam ni Serigne Béthio ngi fi te jugu fi te tey la fi gën a nekk Serigne Saliou moo ne Cheikh Béthio fii yoonu Serigne Touba dox saw yoon di dox bërigoo si mbartal ku si teg sa loxo mu dem ku si tegul sa loxo mu dem kon mi ngi woo ñëpp nañu ànd te xam ni njaboot gi njaboot gi njabootu sëñ Béthio rek lañu man nag fépp lay dugg daa am fa ma yem am foofee nga xam ne wóor na ma ni yem ndax samay kàddu dama koy teg si xam-xam dama koy teg si dal dama koy teg si loo xam ne wóor na ma ku ko mën a dégg boo ko dégloo di nga ko dégloo xel te doone cam ndax leer na ma ni Serigne Saliou ma yar te xaw ma wax ju ñaaw lu rafet rek laa xam lu rafet rek la ma Serigne Saliou yere loole ma yare nag ci laay dox guddi ci laay dox bëccëg te Serigne Touba rek tax ndax leneen lu ma dox lu dul loolu na nga xam ne jéggi naa raay ba man foofu rek laay dox waaw. safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti ñi jóg di way sang be